Euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui, se, qui te taxent d'être pro-Sonko loolu taxé ça c'est un mot qui bu xaw parce que des mën ne lu graaw la dañ ma dañ ma parce que fàng daaj la def je suis un pro Sonko laaxatuuma si le kàggul man la nit daf for real, man, négg Yeah, Sénégal la faral donc man su ma xasee faral Sénégal La mo baax Sénégal moo ma tax a jóg lan moo mën Sénégal kanam Ma, ngi si dëkk bi fi

dialyse bi lepp day ray amul benn prise en charge nit ñi gis hôpital yi amuñu luñu ñu ticket ordonnance tay tey la gën cher nit ñi di dé ngay dégg ay 29 milliards ak ay 94 milliards yuy sey ci aduna bi yuy sey di dem yooyu mënuñu ko fekke ba nopi depuis 1960 depuis 1960 ba léegi la même chose la ñuy dund ku ñew tank tankalel tuba bi pour bëgg a wat fo nga tankalel tuba bi tankal sa cercle bàyyi Sénégal muy gëna a nit ñi di gëna sonno njàng mi di gën a sooxe amul agriculture amul campagne de d' agriculture boo xam si da nga si jukka ni Sénégal dootul manqué lii dootul manqué lii dootul lii dañ koy am ba koy exporté amul ci kenn koo xam si loolu mooy sa sa mbir da nga ñëw nax baykat yi wutal leen 3 4 tracteur yoo xamante si ñi ànd ak yow ñoo ciy jot nga waree ko à la ñëpp ne ah mi ngi jàppale baykat yi fekk ay naxe na ngay fay ay miet policiers yi di fay ay miet sapeurs yi nekkuñ ci condition yu baax bam jaral len ñu leni corrompre ci mbedd bi dëkk bi dara doxul amul sécurité bo démé ces régions yi ngay do xam que ni tabax ben ben ben arène wala ben ben pont 3 du lool moy doxal am réew. dem fekk ben terre bo xamni ni bi la ñu jaayee lako lo xamni waru ni waruñu koo parce que yow sa jëm bopp xam nga ni da nga leen wara a signal ay contrat parce que ñoom dañoo am fulla ñoom na seen dëkk dox rek moo leen tax a jóg ñi jàppale pour ñu faluwaat nag dañ leen wax ah defal ñu lii defal ñu lii defal ñu lii nga dem jël fa ay terre yoo xam ne li nga ko jënde dafa ëpp dayoo tegoo ko fenn fu dul lu neex tubaab yi sa askan di sonn ci di bëgg a dee yow ngay dem di sauver ay puissance mondiale yu mel ne la France ñun yooyu mënuñu koo gis ba noppi daal ni Touba bien tubaab ya ñi koy wax xeyna na patch bi ndaw ndaw ndaw ñi nga xam ci ni ñi ngi mank senegal di lek sen alal di baye senegal yi di bëgg a ak di ñoo ñu bo leen laajee dañ naan la ça va bien te ku wax dañ naan la da nga sof mais ku wax te yalla tax mëno taxaw ne senegal gi ñu nekk ni xam ne ñi ngi ci mbedd yi di di chômer étudiant yi ñi ngi bëgg a jang mi at mu nekk mu dem bay nekk année blanche serigne si sax dañuy dem ba di ci wax lu ne di ci am kenn mënul wax kan le senegal va bien donc ñun nak

bu ñu ba noppi dugal seeni compte askan wi continuer di fay ñu lebaat banen bor ñëw accumulé wu beneen bor ñëw accumulé wu ça veut dire d'ici les siècles qui vont venir sous ay dette lañuy dundé ñom xaaliss bi bi ñu dette suñ ci doon def ay mbir yo xamni day mëna reproductif nekkaat banen xaaliss duñ ko def dañ ci tabax lo xamni day tax ñu faluwaat comment ñu fi banen beneen dette ñëw fekkaat banen dette banen dette ñëw fekkaat banen dette ñuy gëna plonger ci suuf cest à dañuy fay te nag ci ay taux yu yéeme lañ ñu koy lebale ñooñu buñ paree dañuy dem ak xaalis bu dul jeex ak seen i doom ak seeni i jabar bàyyi hôpitaux yi gën a surux njàng mi gën a surux mbay mi gën a surux jeunes yi gën a surux loolu la yooyu mënuñu ko gis pendant 70 ans à un moment donné yu waay fipp na doy na nañ changé ay nit yu bees nañ indi ay nit yoo xamante si ni saytu nañ leen liggéey nañ 15 ans amoon possibilité wu sàcc nekk ay milliardaire comme tout le monde ñu am ragal yalla ak patriotisme bani man ci sama salaire la yem ak li nga xamante ni c'est légal bu ñu gisee yooyu noonu ñu gis que ni ki lepp lo xamné ñun ñu ngi ko wax ci suñu musique ak ci suñu ay émission diko bind suñu ay texte kooku mom moy incarner lolu de manière très juste buñ deful buñ dimbalewul Sénégal ci kooku nonu dañuy wor Sénégal wor suñu idée lolu mo tax nak biñu ñu bu baax légui mosuñu engager wu de manière partisane dañ naan rek nek ay sentinelle di tirer sur la sonnette d'alarme quand il le faut mais nak l'histoire day am contexte day am buñ àggee ci contexte boobu mu leer la yow fii il va falloir que nag cette fois-ci nga dem un peu plus loin pour les besoins de ton peuple bu boobaa suñu carrière inconvénients yi ñu mën a jural bunt yi ñu mën a tëjal yooyu yëpp dañ koy fàtte benn benn objectif rek la ñuy am nan lañ mën a jariñe Sénégal ñu ne kii de gis nañ que ni valeur yi ñuy xaar ci ab Sénégalais bu jubbanti baar bi mu ngi ci moom ñu ne kon kii nañ ko jàppale pour mu dimbali Sénégal loolu moo waral mu porté sama choix